Gaston Production présente le cadeau du nouvel an. mbokk yi la premier janvier 2023 ca arène nationale. Balla Gaye numéro 2 le fils de Double Less gaynde géejiwaay gaa ngi noonu xale bi nga xamante ne saa bu géejiwaay soxlaa mu jëli ji andi. mu war a jàkkaarloo nag ak Boy Niang numéro 2 le fils de Dégol cappaacoli baa ngi noonu ki nga xamante ne ni moo nekk ci xolu waa Pikine. moo tax ma ni c'est le combat de tous les dangers. bëri dàkkumaa xeex bu ñu wuree ci bëri nga xam ne moom dàkkumaa bëri dàkkumaa xeex làmmiñ nag aslem la nga nekk di wax lu la neex tamit ku daan sarax moom bu ko neexee wax dëgg yàlla daanu ñeenti yoon ci làmb yéeme woo bu dee làmb la mën naa ko jàngal bëri entraîneur am moom ci boppam ma jàngal ko bëri jàngal ko ni ñuy tactique de combat liiral ko ni ñuy mbëree ba bi siflee rek man la ku moom sax mën naa la ñii laa koy daane sama xel waxuma la ak na ci loolu Balla Gaye numéro loolu yëpp nag mbokk yi di ko seetaan en live pay per view ci seen affiche point com. mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv point com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey vendredi 2 septembre 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Lamine Seck borom looro Thiès Sagata Njaañ Coan Pël mais instant nag Thiès bomb nga sol sa Loro nii. di ñu nax. ah nax te Ceesay bomb fi mu toll nii. féppay bomb Omar Diop non Ceesay bomb. na nga def mbaa nuyu ba rek balaa nga may mbala. mbala ko dama la bëgg a xam ne Ceesay bomb rek. nga a looro nii mbaa yeeg jàmm ana ah, ngi fi seet seet bi na sam samedi la kër jabar ji dimanche këram incha allah maa di nga teew. ah dinaa ci jéem a teew incha allahu rabbi benn bés. Hmm. naa jéem a teew waaw ba may takk sax wax naa ko ko ñëwul woo mais man dinaa jéem a ñëw waaw. war nga ko jox sax ay conseils parce que nag néegu sëy moom wax dëgg yàlla ku ci xamul dara war nañ ko cee xamal dara. néegu sëy waaw xam nga ci dara jarul nga ah, a xam dara naa ci dara ba ma sëyagul sax xam naa ci dara que affaire bi tamit àdduna àdduna la quoi àdduna. Hmm. àdduna la muñ rek àdduna moom lépp muñ la loolu moom néegu sëy ak bu saalu sëy ci yam mais àdduna muñ la rek waaw muñ rek. maa ngi lay bëggee. maa ngi lay bëggee di bëggee ñi bàyyi xel Lutte TV point com yëpp fu waay mën a nekk si àdduna bi ñu leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziare di nuyu waa Mbirkilaan FM di nuyu waa Vice FM di nuyu waa Gambie yëpp suñu père Ndongo Cissé maa koy nuyu bu baax di ko jaa ñaanal jàmm ak wér ak suñu père suñu yaay Adja Gass ah borom Gambie jim Sénégal koñ bi ñuy wax jim Sénégal fa la dëkk. waaw jim xaw ma jim xaw ma jëm. ba ñu waaw ba ñuy jéggi euh, keroog euh, kii bi nu mu tuddati. féeri bi féeri bi ba mu ne maa ngi jëm Sénégal ma ne ko laay Lirou Diane ñu ngi ci erreur kii nee mu ngi noonu ci yoon bi di dem Sénégal nekk te koñ bee tudd jëm Sénégal. Ah, ok yaakaar naa ni am na solo Lamine. Mm-hmm. ñu ngi ñuy xamal ni nag rëg-rëg incha allahu rabbi mm-hmm. le 29 septembre bii dina nag combattre MMA mook benn russe yaakaar naa ni nag. yàlla na ko suñu borom may ndam waaye tur bi moom du ma ko wax. Batrat Gazav la tudd le septembre incha allahu rabbi Reug Reug dina defaat li nga xamante ne moom moo di MMA maanaam dina xeexaat gannaaw ba mu xeexee ah combat bu mujj mu jëlee woon ci ay jafe-jafe boobu ba léegi nag ñu gis ni Reug Reug ah amaatagul combat ndax combat gis nañ doon na ko enseigné waaye ba mu jëlee défaite bi li ñu naan reculer premier sauté dafa mel ni loolu moo ko daloon waaye ak lu mën a xew daal le 29 septembre dina laale waat nag ah ñu ko ci ñaanal ndam ndax yaakaar naa ne bu fekkee ne tey euh, bëre bëre bëre bëre MMA bala moom buy bëre drapeau Sénégal lay mm-hmm. lay lay lay lay lay yor maanaam Sénégal lay représenté kon nag yaakaar naa dañ ko ci ñaanal ndam bu ñëwee fii nag digganteem ak Sa Thiès ah duma ko mën sa moroom duma waaye ak lu mën a xew daal septembre dina laale waaw yaakaar naa ne nag kon na sénégalais booloo ko ndax yaakaar su ma la ñu naan Omar Kane le comme nag le la ñuy wax yàlla suñu borom bi defar lu kawee njortam mu am ci ndam bu sedd guy guy guy guy Lamine ñu des ak journal bu suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun ci école de lutte bu Balla Gaye ñi ngi impressionné nag parce que nag ci saison bi am na ci 37 combats 23 victoires ak 4 défaites. loolu la école de lutte Balla Gaye def njiit la di Lamine Golo moo tax journal sunu la mu ñëw wan ñu ko ci suuf waaye wan ñu Balla Gaye numéro 2 wan ñu fils de Balla mi nga xamante ne tey jii ci ci ci ci ñi gay Balla Gaye 2 la bokk waaye wan ñu Elton mi nga xamante ne tey jii moo nga États-Unis ku waxoon école de lutte Balla Gaye di nga ko ci boole ku waxoon école de lutte Balla Gaye di ki nga xamante moom moo di les deux waaye ak lu mën a xew daal ñi ngi wane seen bu baax a baax a baax waxuma la nombre de victoire wala nombre de défaites yi mais le fait que ñu am 37 combats rek yaakaar naa ni loolu ab liggéey la Omar Diop liggéey la boo xamante ni def nañ ko waaye liggéey la boo xamante ni Gol mi nekk ci bopp tamit def na ko. yaakaar naa na ñeneen la faal. Mhm. la bokk ci équipe boobu di wane Youssou Ndour doomu père Balla Gaye itamit wane na boppam ci saison bi. Youssou Ndour moom nag dafa mel moom moom moom wane na boppam waaye nag fa mu wanee boppam nag mooy ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di mbay juuf hmm. lu ko jiitu amoon na ku mu dajeeloon kooku won ko boppam muy ki nga xamante ne moom mooy caatu yoof hmm. waaw mu mel ni ñoom maanaam li doon xaar ci Youssou Ndour dafa mel ni ah, dese nañ koo gis à cent pour cent Thiatou Daouda Fall tamit wane boppam ah digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy euh, combat mu mujj bi. Youssou Ndour waaw moog Youssou Ndour ak lu mën xew ak lu mën a xew daal ñoom bokk na ci xale yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a marqué wu. Dugar Pël tamit marqué euh, marqué na euh, esprit yi foofu nag nga xam ne mooy école de lutte Balla Gaye. 3 combats 3 victoires ci saison bi yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne tamit lu baax la ci xale bi nga xamante ne mi ngi ci yoon. Mhm. Fils de Balla wane boppam bu baax baax moom itamit saison bii ñu nekk. le 14 août le fils de Balla wane boppam bokk ci ñi tëj saison bi digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Gora Sock nga gis combat ba na nga xamante ne neexewoon na ko mu nekkoon drapeau Serigne Cissé jam production tëggoon ko fils de Balla ñëw def feu flamme moom tamit journal sunu làmb jàpp na ne ci ñi def jaloore yi la bokk ci xalim ak Ibakan bu fi liiru jaan nekkoon nañu bu la ñu catu. waaw bu fi nekkoon ni di bu leen ñu cot waaye ak lu mën a xew tamit Balla Gaye numéro 2 journal bi wax nañ ni daal moom instant bi assuré na nga xamante ni uuf na njaboot waaw uuf na njaboot gi waaw yaakaar naa ne loolu moo ko war ndax Baye Balla dafa dem bàyyi ko njaboot gi uuf na njaboot gi ba mu leen uufee nag Lamine Golo nee euh, kii bi nga xamante ni moom mooy résultat bi saison bi moom daal maanaam sedd na seen xol daal mhm. waaw sedd na xol sedd na xol yaakaar naa 37 combats boo ci amee 23 victoire 14 défaites baax na ba pare ci victoire ak anam yi ñu ko amee bés yu mag yëpp dañ koo gagné. bés yu mag yëpp merci beaucoup bés yu mag yëpp koo gagné waaye nag xam naa ne moom bu ñuy joxe suñu làmb door moom ñu leen ko jox ndax defe dee tamit xaw naa bëri par rapport ak yeneen écrits te comme ñi ngi def bilan yi jour dañ ci gis ay résultats yoo xamante ne dina am différence bi mais li ma la wax ci ci ci ci commencement bi mooy. li ma amal solo mooy 37 combats. le fait que ñu bëree 37 combats Elton nag ñëwut. waaw Elton nag moom wax dëgg yàlla. Euh, tolluwaayu Elton ci làmb fi mu toll nii waroon nañuy gis Elton chaque jour ci làmb parce que nag. Elton mi ñëwatul. mi ngi Amérique de waaw ñëw am ñëw de Amérique moom. Hmm. mbër yi nga xamante ne nii mën nañu ne ay ndaama lañu ci làmb. Uh-huh. Papa Sow ci la bokk. waaw Modou ci la bokk. Uh-huh. Eumeu Sène ci la bokk. waaw ñi jàpp ne taay yooyu daf leen di handicapé mais talent yu ñu yor. Uh-huh. mooy ay talent wu mag. waaw non comme ni ma la petit. par la taille maanaam dañoo tuuti ci taille waaye grand lañ ci ci talent ci talent maanaam talent daal moom moom du ko ne moom la mu jàpp mooy ñett ñi nga xamante ne tudd na leen am nañ ko bu baax a baax te effectivement am nañ ko ndax ko ci nekk booy xool rek tey Papa Sow booy xool ay victoire am ëpp na 20 ah mm. Modou Lo booy xool ay victoire am ëpp booy xool ay victoire de qualité rek la am. waaw mais Eumeu Sène man jàpp ma ni ndaama la sax Omar Diop. loxo yi daa gudd de. Omar Omar Diop Eumeu Sène du ndaama Eumeu Sène du ndaama. Eumeu Sène du ndaama Eumeu Sène tey ji moo ngi ñoom Gris Bordeaux ñoom gaal ñoom Balla Gaye ñoo tolloo taxawaay de il nit ñi bàyyi xel ci loolu bu baax a baax nañ dem xooli seen taxawaay seen signature bu ñu taxawee mhm. sutante wuñ sutante dara Eumeu Sène dafa am ay cër yu gàtt mais tamit wet gi dafa gudd. Eumeu Sène gàtt bi ndax du ci tànk yi kese. merci beaucoup Eumeu Sène dafay la dëgër numéro 2. merci beaucoup Eumeu Sène tànk yee tànk yee gàtt mais wet gi dafa gudd. Mhm. dafa am wet macha allah tey Papa Sow ndaama la mais macha allah dafa am loxo. waaw day jàpp waaw maanaam loxoom. bu yootoo day jàpp merci beaucoup. waaw Modou Lo bu dee ndaamat bëri na njool lay bëree. moom muy dugg day xeex buy génn day xeex. moo tax ndaama ndaama lu weex lay doon. waaw ndaama lu ndaama moom bu weexul moom du yàgg ci làmb moom. Mhm. kooku kay maa ko wax ndaama yëpp nañ jóg. dem jàngi xeex bu méttee méttee méttee soxor ndaama lu ci weexut moom le père Birame doon wax rek waaw bu njool yi waxee ndaamay génn làmb ji. kon nag yaakaar naa ne la nana ndaamay dégg. a weex. Mhm. cadeau de Noël bu mosul am fen lañu bëgg a jox. Hmm. muy Baba Diaw. waaw ñaq jariñu Jackson Junior. buur Sine général Malika ak yeneen i combat yoo xamante ne nii benn bu ne rek mat na grand combat. làmb da ngay jaxase ndaamaak njool moom moo tax ay ndaamaaki njool la boole mu tax mu le vingt cinq décembre Baba ñëw nar Baba Diaw nar a ñëw ci journée bu ama ama ama ama am am solo euh, Omar Diop ndax boo xool combat yi mu tëgg yëpp a neex. ay combats spéciaux la def maanaam galaa la fas def ci boobu la journée ndax booy xool grand combat bi nga war a dox ci diggante ñaq jariñu bu caaroy mbooloo Jackson Junior bu Géejawaay combats spéciaux yi buur seen xam nga ko. Mhm. bu écrit bawal général Malika xam nga ko. ba euh, bu Malika Mbooloo Fourière xam nga ko bu Grand Yoff. Grand Yoff moom la bébé jën daanoon. moog Boy Zil moo mujjee daan jum 2. Mhm. Laurent Ndiago jàmm gën ak nga xamante moom mooy alliance Baldé bu tay si ak booy mbuur mu mel ni jour boobu maanaam dafa boole public lutte simple ak public lutte avec frappe c'est important dafa jël ay mbëru simple ñaar ñoo xamante ne ay mbëru simple lañ général Malika ku ne xam ne ne mbëru bëre dóor la waaye mbëru simple la tamit mu boole ko ak Doudou Sané ci benn jour boo xamante ne tey waa Grand Yoff dañuy ñëw Adrien Senghor ñëw waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy amateur lutte avec Fra bi dañuy teew mu mel ne rendez-vous bi le 25 décembre incha allah rabbi danañ dem toog ak Baba Diaw gën a yaatal ci bés boobu ndax yaakaar naa ne bés bu ama ama am solo la te dinañ ci liggéey ba mu gis ci boppam incha allah rabbi dinañ ci liggéey ba Lac Rose Amanekh à Caen maanaam làmb ji nga xamante ne jàppoon nañu ko mu mujjul am ndax Amanekh dafa amoon blessure le 15 mais bi weesu. Mhm. ñuy laajte nag kañ la ñuy boolewaat ñaan ñi ñu bëri. laaj boobu laal la journal sunu làmb xëy samp ñu ngi doon wax décembre waaye ah xaar xam fa la wànnante bi mujjee ak ay gëtam ndax combat Lac Rose ak Amanekh dina am wala dootul am ak lu mën a xew daal laaj ba journal ba samp na ko nañ yónni yàgg nag ba xam kan mooy tontu ci laaj boobu noonu. arène nationale la bi ñu koy jox dañu ko joxoon ci ay anam yu baax. nit ñëpp kontaanoon ci ñu dem ba jëmmi jamono arène bi di mel ni lu neex waaye def buntu yi saisi yi amul su sax stade bi si boppam amul directeur. stade bi amul directeur Omar Diop lan la ko waral nag mooy ministre bi parce que ministre bi moom moo ko war moo war a nommé directeur bi parce que stade bi yëpp ci ay loxoom la nekk waaw wax ji wax ji wax ji ñi dañu wax waaye nag. moom moo yor ci gël gu ko neexoon suba suba stade bi am directeur su ko neexoon suba suba stade bi ñu ñu tuddee ko tur loo xamante ne daf koy waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy kilifaam di président waaye ak lu mën a xew daal stade bi ni mu war a mel Omar Diop melu ko. Mhm. ku ci nekk nag am nga ci part responsabilité. parce que stade bi douche yi damm na douche yi douche yi euh, robinet yi damm na robinet yi nag waa CNG damm ko ministre bi damm ko nit ñi ci boppam ñoo ko damm. nit ñi dañ fay faj seen soxla. duñ duñ duñ duñ jàllale ndox mi yooyu yëpp maanaam ci maanaam ñàkk maanaam. éducation de base. moom moo koy waral waaye ministre bi am na loo xamante ni devoir am la mu war ko def bi defu ko loolu nag nañ ko ñëpp ko ñëpp wax mu dégg ko su ko ñëpp waxee su ko déggee peut-être dana jël ay décision bëri na nag loo xamante ne ni tamit dañ koy wax ministre bi mi ngi liggéey mi ngi liggéey mais am na loo xamante ne dañ ko ko war a wax. dañ ko ko war wax duñ ko parce que ki lay ki lay ki lay jox à chaque fois. Hmm. bu yàggee mu ëmb sa sa sa làmmiñ ba doo wax. waaw déggu olof olof dani waaw ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. waaw kay yaakaar naa ku la abal ay gët. mooy xool fu neex nga xool. fu neex ngay xool yooyu da ci am. Mhm. yooyu da ci am parce que wax dëgg neex yàlla ministre bi tey am na yoo xam ne daf ko war a dégg il faut ñu wax ko tamit mu dégg ko parce que tey da ngay bi ku génn wax ci moom sax tey suba keneen tontu la. waaw te bu tax mu tontu la de. parce que ministre bi sama waay la. tànn yenn ay quelques personnes di leen def leen waaye du noonu dëgg la amal ay waaye amal ay waaye mais tamit bu la waaye waree wax dëgg nañ la wax dëgg parce que liggéey moo ñu wax dëgg du sa waay voilà loolay dëgg Omar Diop nañ jeexal ak premier combat de la saison bi nga xamante ne moom nañ génn ki ko njëkkoon a bëre kan la yaakaar naa ne Marley moo ko bëre woon ak Nekorel moo ci njëkkoon am victoire mu nekkoon 10 octobre 2021 kan moo ko tëj ki ko tëj est que du Kaw Gourdin waaw kaawu dee moo ko tëj moog Baye Mandiaye la waaw moom moo ko ñoo tëj saison bi tëj ko ak ay victoire may nañ ci yow bu baax a baax Omar Diop ndax yow lu ci détail bu ne nga may jéem a dugal ah. man kay lu bi bind rek laay wax ak di wax loo xamante ne nii nit ñi duñ ko wax. làmb ji buñ ko buñ ko tegul ci yoon mu gën a yées rek. parce que boo xoolee làmb 2006 2007. 2008 millions yi bariwul woon nii. Mhm. làmb ji neexoon na. Mhm. amul par parparloo. Mhm. waaye nag léegi nit ñi yaa ma gën a xam. Sentel nee na ma làmb 2012 la yàqu. waaw kontaan nañ ci yow bu baax a baax di kontaan ci ñuy bàyyi xel Lutte TV point com yëpp ah groupe Lutte TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Omzo bu Garga Serigne Ndiour Toutiaye Sarr Mor Jaxate maa ngi koy bégg bu baax a baax di nuyu groupe xew-xewu làmb ji Abdou Bo Xarañ Lo ah ñoom Amdi Moustapha Cheikh Bass Kër Massar doomu ndey Pape Demba ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziare waaye nag di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy Galso borom amul yàqalaate maa ngi koy bégg bu baax a baax di ko ziare di nuyu Mounja directeur Serigne Mado ah di nuyu tamit Mansour Kassé moo nami liiru jaan maa ngi lay bégg bu baax a baax a baax baax doomu nday sëñ Cissé bu sëñ Babacar maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di nuyu Ndooreem ah maa ngi lay bégg bu baax a baax borom Dakar Moursia ah borom top 5 fitness top 5 musculation maa ngi leen di ziare di jox ñëpp rendez vous ah, suba incha allahu rabbi